mbokk yi ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi géew bi combat dox combat bi dox ci diggante da Sandwich ak ki nga xamante ni mooy Mbacke Faye Mbacke Faye Rock Énergie Daouda Sandwich Lansar Mbacke moo ñëwoon ginnaaw Daouda la nu jàkkaar lool arbitre bi sifflé na Daouda wàcc na Mbacke Daouda Sandwich Daouda ngay déplacé Daouda ak Mbacké Faye Daouda wàcc na ba nekk ndaama Daouda Mbacké Daouda dóor na Daouda Mbacké jàpp na Daouda Mbacké moo ngi koy imposé Daouda bañ Daouda ak Mbacké Daouda Mbacké ngay dóor Mbacké ngay dóor Mbacké Daouda takk na ko takk na ko da koy daan Mbacke daan na Daouda Mbacke daan na Daouda Mbacke Faye daan na oh, ngi noonu Daouda daanu na mbake Faye daan na Daouda Mbacke Faye daan na Daouda oh, ngi ci diggi géew bi xoolal ma Daouda Daouda ci diggi géew bi tëdd am na lu ko métti am na lu ko bett. moom Daouda Sandwich waaye Mbacke daal na ko